man ku ma gën Abdullah بنتك ما تندمي بالله انت جنة good luck.

Al-Jantari هو

سيدان أخرجني أحتاب ربي الله إلى الإدارة في زمن أدمني كم تنبت ليلة لا جعل ما العجل مدينة يعني بالأذن تبابا لي الله من العباد عن ذنبي أكرمني مسلما على الوجود باسمي بيكلمني صل على المدثر خير الورى المبشر مع الفراع المكبر وعليه وسلم صل على المسمر جلد جل مؤمر آمن ذا للمرمر وسمي وسلم صل على عبد الإله حبيبي سر الإله شفيعي سيف الإله وآله وسلم صل على عبد الإله نعمتي باب الإله صراطي أد الإله وصحبه وسلم صل على سيدنا ولينا قدوتنا حبيبنا شفينا وآله وسلم صل على المؤدب في الحرمة المودب خير رسول ونبي وصحبه وسلم صل على باب النعيم تكسرات المستقيم كشف الكراب وذكراتكم نتب وسبئي وسلمي سلي على مع الوكيل والمتوكل الكريم قائدنا إلى سبيل والآل وسلمي سلي على بدو نافسة بدر البدور وسبي وسلمي هو الذي خان النار لمن يجل الإبدان ومن ناو بتدان لحردان bi salikal kitaab moom alquran akrim bi salikal kitaab moom alquran akrim bi salikal kitaab لنا ليلة مدى من أباه ترداس عزرك والندم وكل شخص الخدام في ولم يتهدا بتوبة لا قردا النبي المنتدب والذي من اهتدى بهدينا لولا ويبتغي فوز قداسة حزمة من نقمي وهو الكتاب مدير جابر لب أمين بإذن رب العالمين جل عامل أقوى وهو الذي من أدبر برام في أنظار الدوران أدوكة للأمم وهو الذي مات بطار فيه ولم يهتم بطار لم يود فمي أذكر ربي العظيم على كتابي الذي مبث فيه كل قدم ساعة نظمي كتاب ربي الكتاب boo am dox yàlla na yàlla buggal sa fan yàlla nga yegg ni yoon gis nga nit ñi nan tey te delloo xel ci yàlla yàllaa yor lépp mhm. ak la mu solo bari na nit ñoo xam si da nga ñëw ñu tàggale nit léegi nga jooy sa xel dem ci yàlla mhm. sa xel dem ci yàlla suba sa fàtte te nag nan delloo xel ci ñaar gis nga Modou Kara quinzième étage cent quarante milliards ci compte banque taxul nga am titre foncier mhm. titre négatif nga am titre foncier bàmmeel loo fa jëf dox fekk yàlla na yéex Sëñ Tuubaa rek la bëgg bàlli si biir suñ mbàkke maaram xaalis borom nit ñi mamal salmat sin ba mujjee woote ëppi donga gën a gëm ne gën a siiwle borom ñetti mag gi màggal bu mag gi jumaa sëriñ bu mag dëkk bu mag bi xaalis ta ko nga dem lambal ma suñ bàmbaa ko toj nga dem assemblée suñ bàmbaa ko toj nga dem taw mi suñ bàmbaa toj nga dem assemblée suñ bàmbaa ko toj nga dem galagala suñ bàmbaa ko toj nga dem lambar ma suñ mamasen min sinɓe mu jewode adduɗen o sino sorol gel juma rangati makki magganko makki jumajo makki sëriñ bo makki dëkk makki xarit bo ɗi maami sëriñ Muntaxa Mbàkke ba sëriñ Faatou Modou Mame Thioubine ba càmmiñal Xadima ca mbéy bay sëriñ Muntaxa soxna bi du jaxate guddi soxna bi du jaxat sëriñ Asan jaxate guddi sëriñ Asan jaxat tas axma soxna jaxate guddi tas axma soxna jaxat soxna Mbàkke ñoo guddi soxna Mbàkke wa ne maam maaram xaalis bu nit ñi momal service dafa mën wër ñàkk parce que da ngay nit ku baax ndax yooyu dafa ñëw ni man di maa bëri tax mu ne ko tax mu ne ko damaa génn mbedd mépp di ma tàcc mu ne ko tàcc yooyu sa ndey ak sa bàyyi mën nigi sama mën a fend rek mag bàyyi Modou Kara ma koy naa ko poos de kii di daay xam na li ma ko bëgg xamoon maa ko waaye yéen yéen ñi xaar sa si bi ah loolu daw sëñ bi jërëjëf Ahmadina Lamine ana maraam bu sopp Sëriñ Baara neel mi ñu màggal ko ba Cheikh Bamba ne àjjana tey jii ku fa dem ñàkkul moo fa dem soxna mi taloo soxna mi taloo soxna mi taloo waajuru Sëriñ Baara ne leen mi ñu màggal Cheikh Mouhamadou Lamine Baye Cheikh Sidi Mokhtar si jati mbàkki ahmadina alamin yow mii di ne xam ne daga jaaxaan dañu ma kañ borom daga jaxal ci maan la Baara sëriñ Baara sëriñ Baara mooy borom buy miñ yor na jaabi ji da jana ci moonu fambi mooy doomi Cheikh Bamba te doomi mbër la te mbër la ku mu bëri xeew ka daan la mooy borom kaddu gaal Mbàkke Kajoor bisu mbàkkeem ba ku fa teew te xam wóor na ba seere sëñ Baara na na dem nga jabaan sa daara Bamba dina ba taxaaxal jox la mu rëy na ba ñëpp yéem ko ñu leen day képp ku bokk ci ñañam du tabbe naara lañ ko seere muy ngërëm Cheikh Baara wàccoon na fi ngir yërmande képp lu jëram te am nga jàpp wóor fan yërmande Cheikh Baara Mbacké mbóot na wilaaya mooy damay ci fi saxal idaaya docteur la woon demoon na sax ay dekkal daana def daana faj lu waral saxal naataange daana faj lu waral saxal teraanga ku ñu ne jàpp mbaa rab mbaa seytaane Ahmaduna alamin fan ci ka jar di màggal ku masa yor xamala yoonu yàlla saate islam jaga buur ba yàlla musal bay ma ma njaay muy jooru sëriñ baara moo gasal fu fanaane jàng ñëpp waar mu may bay ma ko dekase loo xam ni kenn mas ko may jegaayi nii ne ma ko demoom du la seet yam na xiyaam daw na grâce bokk yam ci moom nee na nii ñu Baara na ko demoon du lekk seet yow na xiyaam daw na grâce bokk yam ci moom amul naa lam yiin yow amoo moroom koo ñoom mi ñëf yi te jaragal nga sa borom ku mas a tooñ sëriñ Baara billaahi yàlla fat ko la fi nekkoon ba tey dugg ku ma tuul nga ngi léegi nga jóge fi yin ñaani war naani ku gëm sëñ Baara ku gëm sëñ Baara ku gëm sëñ Baara ku gëm sëñ Baara ca gëm jërër du lakk njëgër sañ sañ ba ku gëm sëñ Baara ca gëm jërër du lakk njëgër sañ sañ ba sëñ Baara seex am na seex bu mën a ñëw sëriñ ñaan Joob maam Cheikh bi Karim Mbacke borom Mbacke Baari sëñ Baara moo ko feexal Cheikh Mor Diarra ngay jaxaw sëñ Baara moo ko seegal Cheikh Mor Diarra waalo bay sëñ Cheikh ba jëlew maam sëñ Tabaas sëñ Baara moo ko seegal sëñ Assane Gueye ci ngeen sale sëñ Wurma Darman Toba sëñ Baara moo ko seegal ak ñeneen ñu jàkk di yaa moo jëf jëf dina ci di yaa teel may jëriñ ma ci sabi du maa sa koore du maa di dellu di nuyu tey ñaanal

ñu tuub kàddu yi ñu yëkkati ndax tey am na woon benn yéene ci yëkkati kàddu ndax yàlla dafa dogal suñu kilifa nekk fi macha allah ñenn ñi bari lool waaye ñu gees su xam naa dañuy reeraat ndax ñoom ay ñetti yoon la ñuy reer ak ñeenti yoon ndax sëñ Fallou ngi fi dafa fi nekkee amuñu fi kàddu sëñ Cheikh a ngi fi bu fi nekkee amuñu kàddu Ndiaye Sall mi ngi fi di suñu mag di suñu xarit di suñu soppee fi am lu ñuy nekk ci suñu kilifa sëñ Mbacke nekk ci suñu kilifa sëñ Fallou Gueye di seen kilifa ñoom waaye moom xëy na gersa gi ak taalibe gi ëmb na di tax ba du mën a waaye li ñu def ko di ko dàq fop ndax moo ñu ëpp xam-xam te dañu koo leerle gën ñoo wérub taalibe te dañu koo yàggale te saa su ne mi koy nàgg kon kàddu yi ñuy yëkkati dañ koy yëkkati turu suñu kilifa yu góor yooyu ma lim ak suñu kilifa yu jigéen yi fi nekk ndax ñun moom mënoon nañoo noppalu leen ndax nag am nañ ñu mën a waxal ndax ñoo ma limee kilifa yu góor yi te kenn ku ci nekk ci ñoom mënoon a yëkkati kàddu yu gën a sell sama yos noonu laa mën a limee kilifay jigéen ñi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk xelam ak xalaatam gën a sell sama yos waaye bu ma ci tuddee seen xalifa bi tuggéey jàpp naa ne dina mën a yóbbaale ñoom ñëpp li ñuy bëri bëri. ma dalal ci loxo yi suñu xalifa di suñu xalifa di suñu papa di suñu yaay muy soxna Mati Gueye may ma dee yow ak ñu toog ci base bi yëpp yàlla yàggal ko fi yàlla wéral yàlla boo gisee tey am na xarit te mbokk bi yàlla dafa def mën naa ne ku ma wala ku ma ci wala ku ma ci jël damay jàppale li ma am ci yow cër la boo xam ne man ak maa ko am waaye it tey cër yooyu mën naa cee ràññee bu soxna Sall mën naa cee ràññee bu soxna Jaw Géey ñii bu ma leen tuddee yàlla donc laay seereel cofeel gi may yëg bu ma leen di gis wala ma leen di war na rek sama xel ci te it ñu amaat ay gan suñu wàllu kër ndey samay ndey ñëw nañ bi ñu suba amaana am na ñu fi waaye bu ñu demee bàyyi nañ fi lenn seenu njaboot xam naa bu ma ci tuddee Balla Samb danañ mën a yóbbaale ñoom ñëpp. maa la ko wax. tey jii yëpp nag ñu ay gan yu màgg. ñuy suñuy bàjjen di day ci ñenn ñi. te ñooñu ñooy kilifay jotaay bi. kon su ma tuddee sama bàjjen soola damay limaale bàjjen yi fi teew. waaye nag tey jotaay bi li muy rafet rafet xel yëpp dafay delluwaat sa mbaajan xol ndax xam nañu ne jotaay bii nii tey daf koo nam xam nañ ni fa mu toog xelam ak xalaatam yëpp ñu kon ñu ngi koy ñaanal am forme boo xam ne moom mooy ñëw boppam téyeel boppam gàmm yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla xam mag yi ah jël kàddu bii ma jël day gis na ci man ndax li ma la wax rek suba ba léegi waxuma tasawuf bi nga wax benn yoon waaye sëñ Fall moo ma dajal rek kon bu ñu ko defee ci ndigal xëy na dina xaw a jóg dañ mën koo dégg waaye ñu lay seereel rek ni tey jii dañoo am mbégte mu yaatu ñu doon amee at yu weesu ndax gàmm dafa daanaka damaa gim ni rek gis ñu koy màggal ci kër suñu mag yooyu ma lim sànq. ñoo ko daan law taabe boo des ñëpp nag am nañ nañ ko defee kenn ku nekk si ñoom mën naa jël ci poos moom def ko na mu gënee waaye dañu bëgg kenn ku ci nekk tàmbal ci dërëm ndax mu barkeel suñu fàllu bi lañ yebal diaspora bi mu woo ñëpp kenn ku nekk mu laajte sas lëf soxna woo ñu nekk fii yëpp kenn ku nekk nga tàmbal ci sas lëf ñu daan ko dajale di ko def ay ati at organiser fi wàcc kaamil defar ay saraxe ñaanal way daw la yëpp loolu buñ ci doon yem rek suñu mag ndax ñoom duñ bu fekkee ne ñoom law taame nañ loolu ba ñu kon ñoom ñu ñuy wan lan mooy yoon baax kon suñu mag yi suñu kilifa yi suñu bàjjen yi mënuñu leen a fay gis naa yenn jëw yi ci jëw te xëy na nii mooy tax ñu amaat jotaay yooyu kon ma ngay ñu ngi lay jaajëfal bu baax ndax xam nañ ne tey xat la ñëpp la soxla la soxla te nga fas ne xam xam lu ginnaaw ak cofeel booy fekk li ko seer pour nag nekk sama la